réalisation robotique Le ma ci dugal euh, mooy temps mooy toog booy nekk vacances ma toog amoon dara lu ma def euh, may gis ay jouet may xool objet yi il faut que naa si jéem créer dara ma xoolee benn objet ma jéem si récupérer ben genre objet ak yenen ak truc may jéem di recycler di dajale ba ma mën créer ben voiture voiture électrique aussi un aspirateur aspirateur pour xamné ay petits particules aspirer voilà te damay tok de temps en temps moy am ay inspiration idée di ñëw may gëna avancer di gëna améliorer auto bi mayor auto bi ay roue la euh, ak euh, ak euh, stylo moy kubéeru stylo bi stylo bi fu muy dugg euh uh-huh. amna tamit fil ay filou chargeur moy moy permettre relier auto bi ak commande bi aussi amna tamit ay lampe jeu de lumière aussi tamit mën nañ ko charger ak chargeur câble USB yi ñuy charger portable léegi pour lumière bi ci souf la nek interrupteur bi ki la interrupteur u torche torche yu ñuy nitee guddi bi voilà mom la def pour mën tal lampe la, auto lampe yi nek ni jeu de lumière aussi commande bi moy permettre di dawal auto bi avancer arrière commande bi mën na avancer loo bi en même temps aussi mën na ko arrière loo avancer et arrière. aussi am nañu euh, un aspirateur aspirateur bi ay petit particules lay lay aspirer aspirateur bi objet de matériaux bouteille Sprite lañu jël ak ak euh, benn moteur dynamo boo xam ne mooy nekk ci biir mooy permettre di aspirer poussière wala petits particules aspirateur bi tamit aussi commande bi moo koy moo koy commandé pour vous dire que rek commande bi mën na commandé oto bi aspirateur bi ak petit oto bi pour pour mu aspirer ay petit particules aspirer comme ay papier poussière papier par exemple nii voilà mën na ko aussi dépoussiérer comme ça pour mu mu génnee ko boo paree tamit mën pour nga bañ a bësaat mallette bi da ngay ubbi ci kaw nga dem ba ci poubelle bi nga voilà aussi bii tam beneen un modèle voiture la bi pivoter comme des tourner comme ni par exemple moo avant arrière loo avancer. aussi mën arrière aussi mën avancer. damaa wàññi volume de oto kii bi oto bi permettre ñaari dynamo yi ñuy dawee à sens contraire par exemple nii derrière ni, avancer, voilà mon wala mu arrière avancer et arrière. véhicule bi ay ay petit roue ñoo ko composé euh, ay bant bantu cure-dents yu mag brochette yi moo moo ko mooy relier pneu bu ci kanam avant ak derrière aussi ak deux dynamo dynamo moy nek ci ci radio aussi ak ben genre objet de matériaux dañ ko ramasser comme genre ben plastique ben barre mom moy tenir ñaari dynamo yi pour permettre ñu bok même sens aussi mom mom moo di relier pour pour mo pour mo meuna daw hmm. même chose avec commande bi commande bi mo xey mo xey mo xey conduire commande bi aussi mooy mooy permettre comme wanaa sànq mooy permettre véhiculer courant bi ci oto bi permettre aussi mu mouvementer ni comme ça mën naa ne passion la parce que jàng ma ko def ma aussi benn formation damay toog voilà les idées viennent bañ na ko ba su ma idée idées yi damay teg sama kay di noter damay noté tëj léegi buma amé temps ma xol la laay mën réaliser par rapport ak idée yu may am muy ñëw voilà. metti wono tarap metti wono woon na trop ndaxte su damay defar ba si yag mu yàqu après ma décourager né non mënuma mënuma fa ég mais bama togué jël sama temps ne il faut que ma def ko presque auto bi mëna ni ne def na un mois mais bama ma auto bi après euh, beneen auto bu ndaw bi une semaine la ko def aspirateur bi ma def ko deux jours auto euh, bi bi un mois la ko def aspirateur bi euh, oto bu ndaw bi ma def ko une semaine aspirateur ma def ko deux jours bon pour pour wone ne rek dama dé découragé découragé woon naa si mais aussi de fur et à mesure ba ma réaliser sama première réalisation moy auto bi après si la inspiration yi gëna ñëw may gën a motiver wu. bricolage bi lama ci gëna duggal euh, année bi dama bokkoon ci mouvement scoutisme léegi mouvement bi dañ doon def. Euh, par exemple par être a trois étapes étape engagée, technicien animateur l'étape étape technicien là, def il faut say preuve ma ma am ben étape boo bricoleur Je ma sama mi donc il faut que je choisir étape il faut que je bricoler lo xamé dina mëna a prouver samay réaliser première réalisation euh, aspirateur aspirateur bi ba mu ko ñëwee ko samay responsable ñu gis ko ñu aspiré ndox bi ndox bu tilim lañ jël ñu def ko ci aspirateur bi après mu dox après gars approuvé jox ma sama brevet Non, là, continuer ma commencé commencé bric bricoler comme que amn'a naa euh, don bi il faut que me gëna a motiver gën inspiré wu pour continuer. samay idée de projet damay tok par exemple m'a, ma gis ben, télé wala ben portable bu yàqu mon portable il faut que ma def ko mu tak par exemple euh, comme train express régional bi dama fala dëkk presque ma gis nu mu nu mu nu mu composé woo il faut que me reproduire train bi après comme ay eh, dina dinaa mooy ma xalaat sama auto yi nu ko defare mais il faut que me reproduire ko courant bi nu muy demee après de temps ma teg sama big sama kay su ma xoolee ma dem taxaw jël sama temps xool particulier nu mu mel nu mu composé et tout su xoolee ma bind ma parce que euh, matériel yooyu mais matériel yoo xam ne récupérer man samay samay bricoler dem dox di ay matériel après rendre utile par exemple comme ay bois bois yi di des mun naa ko récupérer ñu forme bu bu ma am aussi wala en carton voilà aussi mëna naa récupérer fil filu chargeur yi yàqu ba pare pour mëna défar defar train express bo ma SB ñu ngi ci mais pare mëna réaliser guñ ko matériel ñoo manqué voilà mais maa maa ci train express régional nu mu toll aussi ak nuñ koy waxé ci dëkk bi ak c'est la première fois mu am fi, tu ma ko réaliser bon mëna né man mako ñëk réaliser dama ci contente trop aussi pour mon pour montrer visibilité bi aussi pour tout ñëpp ñoo xam ñu ngi suivre actualité peut-être su ma ko dugalee ci actualité bi dina gën a intéresser nit yi. lu ma euh, pour bu ëllëgee ma ma mën sa oto bi nu mu ma ko bu mag commande bi aussi commande bu mag aspirateur ma def ko aspirateur bu mag nga xam ne dina mën permettre sénégalais ñu mën diko utiliser sen kër yi aussi eh, euh, voiture yi aussi ma def ko voiture bu mag mën a nekk tamit ay voiture pour enfant xaalis suñu suñu rak yi ñu koy mën a defar nga xam te ne di ko mën a importer ay Chine et voilà nga ne lépp lu ñuy defar ñun sénégalais ñun ñoo koy defar suñuy propre moyen voilà lu may def nii soutien laa si bëgg pour ñu jàppale ma ñu gën ma pousser pour ma pour niveau parce que am naa capa xam naa ne am naa capacité bi mën naa ko def mais aussi soutien laa si bëgg ñu soutenir ma ma gën a avancer réaliser gën a am ay réalisation yoo xam ne voilà dina dina mën a rendre utile population sénégalaise dara dara ñàkku fi daal lépp a ngi fi voilà di gën a message bu may gën a lancé mooy samay morom scout ñuy gën a di gën a motiver wu parce que am nañ capacité bi mën mën nañ ko def ni ma def aussi ba commencé di réaliser certaines choses samay morom tamit ñoo xam ne technique la ñuy def wala ñoo ngi def comme par exemple si domaine domaine genre ay bricoleur affaire yooyu noonu ñu gën a renforcer seen capacité parce que xam naa ñun suñu genre yi ñun ñun la ñuy wër voilà pour mën nañ développer dëkk bi comme par exemple Europe nu mu mel ñun ñi mën nañu relever défi boobu ba Sénégal ëllëg voilà dina am changement